ak ñëwam dafa yóbbaale ñëw yooyu yépp lu doon ñëw doon ñëw ba sëriñ bi di ñëw jekkiwul ba sëriñ bi ñëw ba sëriñ bi dem mu tàmbale ñëw da doon ñëw bi Cheikh Mouhamadul Moutada dee ñëw waaye waxuma ne ñooy ànd de waxtu wi mu waree ñëw bu jotee moom dafay ñëw te mooy bis bii nag dawal na oto moom ci boppam ñëwal fi boppam dawal na oto ma ànd moom mu ñëw ci bis bii kon loolu lu yàgg la mu doon nag koo xam ne damay wax ne mënumaa wax ci moom waaye damay wax ne maa mën a wax ci moom ndax ku firiloo sa kilifa jàmbur mu firil la firi moo dégg ndax ñàkk gaa xam te firi sa kilifa ak firi téere boobu mokkalul ñooyam. accident yi day bari lool. waaye kii daal man na maa wax ci moom. te samay wax ci moom. sëriñ bi nee na bàyyi nit mu kii mu firi la sa kilifa. te déggu ko. moo jàngale téere boobu mokkalul ñoo yam moom mi nag bu ñu koy nat dañuy wax ne ndax sëriñ Touba bëggoon na xam-xam xam naa ñëpp am nañ tontul ndax sëriñ Touba daana taayif daana taalif loolu ñëpp. am nañu tontom. ndax Serigne Touba fonkoon na mag ñi àndoon ak ndax Serigne Touba fonkoon na mag ñi àndoon ñoom. loolu kat jërul latte fonk leen moo tax mu def ci ñoom li mu def ci ñoom. ndax Serigne tubaa dafa toogoon. ndax Serigne Touba wër na àdduna bépp door a toog Serigne Touba nag ku koy donnu doo ko donnu. façon rek déedéet la mu doon def lu ci ne danga nga naan duut baram ndax yaa ngi koy def bu boobaa ñu ne te dëgg-dëgg neexu a wax waaye kii kat am na fu mu féete sëriñ bi mu jàng bi ñuy jàng dafa jàng bi mu jàngee ba noppi day jàngale day jàngale bi mu jàngale ba noppale day bind ay taalib bi mu defee loolu day def ay fatwa di di di conférence ci biir àdduna bi ba Nations Unies ak fu waaye fu mu jaar leeral na mbiru Serigne Touba dëgg la de ndax am na benn téere bu mu bind. bi mu koy bind benn kilifa bu mag professeur moo am lu mu bind ba mu ko ko joxee mu ne ko dama bëgg nga xool ko loo ci war a defar nga defar ko ci loo ci war a yokk nga yokk ko ci waaye ba mu téye livre ba daf ko ne awuma lu ma ci yokk amuma lu may wàññi ci livre bi ndax kilifa gu toll na yow ci yitte ci kaw ji man duma laal dara ci production intellectuelle waaye nag danaa barkeelu bind beneen téere te la kooko doon wax daal di ko koy jox te loolu nag mi ngi tudd tawdiidu xaqaayati fi ruxyatil ilaal moom loolu rek taxu ko jóg de leeral mbirum weer wi ni muy doxe leeral mbiru sëñ bi muy doxe noonu lay doxe moo tax di sonn du tay barki démb danoo dem Gàmbi di ubbi jumaa ja waaye keroog li mu wax mboolem imaam yi julli si woon ñu ne kii kat waru fekk dafay war di ñëw bu may tënk discours ba dafa wax ne dëpp jot na dëpp jot na ndax lii ñuy tuddee Pastef boo koy dégg ci nit ñi day mel ne ku joxewul xaalis amoo Pastef tey te nee na Pastef mooy pas-pas te mooy xaqiida ci biir lay nekk loolu nag bu ñu ko firee matériel ak gànjar danañ ko yàq te gis naa ne lépp lu mu doon ci àdduna boo xoolee lu mu rëy rëy coow bari xaalis matériel mu ne kon nag dëpp jot na loolu nag ku yàlla joxul mission ngay wër àdduna bi xool fu ne dafa yàqu ngene lii day doxul nañ ko defaraat nañ wëlbatiku nañ mel nii day mel ni dangay dox rek waaye amu mission moom nag liggéeyam ak tukkeem lépp sëriñ lépp service la ci service lay liggéey ndax fi may àndak moom day ci àdduna bi li ñu war a def dana leen ko wax li ñu war a moytu dana leen ko wax bu dee ci diine jee bu dee ci yoon wee bu dee ci autorité nekk waaye musuma dégg nañu may dégloo waay nañu may dégloo musuma dégg dajal leen fi aslef ngeen jox ma ko musta am ma yóbbu ko musta am sa sëriñ ba Cheikh Sidil Muxtaar am na lu mu waxoon de nee na maam moor lantinoor la du teeg diw te témoignage boobu maa doy na waar de te bu bëggoon diw de dana xam ne bëgg na diw de waaye moom de loolu ñoru ko de liggéey bi daal mooy li sëriñ bi bàyyi woon rek wax naa ko Ibrahima Diop imaam Thierno ko barki démb ma ne ko bayit bi sëñ Tuubaa di wax nawaytu maa yu jaddidu sunnatahul xarra wa inni ahmadu moom mën na ne ahmadullah ndax yeesal li fi sëñ bi bàyyi woon rek ci la nekk mas naa dégg mu ne man duma sos man duma sos mais am naa sañ-sañ sof ca lañ sos loolu nag niveau la bu nit di egg duma ma sos waaye danaa sof ca lañ soso kon naa yem fi yem rek danaa sof du sos waaye danaa sof yaakaar naa képp kuy ràbb xam nga sof. sor yi ñuy ràbb. di ko xam xam ne fu nit yem rek boo yegsee mën ngaa jàll. loolu mooy sof. kon ñu ngi koy ñaanal yàlla bëgguñu koo téye nag ci jotaay bu yàgg ndax dañoo wax ne ku ñëpp bokk. koo ñëw fekk mu mu sikki ko dañ laa war a àttee ndax yëgu góor li xew yëgoo ni kii kat ñëpp ko bokk ku ñëpp bokk nag ah, du ko ne da ngay rek waaye mun a si jël lépp waaye li ma ci am ah léeg ma dem sax ba dëkk koo maye ma jégaluwaat yàlla wax naa léegi ne ku ànd ak nitu àdduna. nga naan yàlla na ma yàlla dimbali. da nga ba sama patron bi gën maa ba bëgg. dem ca tariyaax yaag. jabar yaag ak yëg waaye moom. waaye moom. nun ñi ànd ak moom nun ñi koy ñaanal liñ yàlla naa gën a bëgg sëriñ Mamour. yàlla naa ko gën a mën a taxawu. waaye yàlla na ma sëriñ Mamour gën a bëgg. man loolu rus naa koo ñaan. li ma koy ñaanal kay. yàlla naa ko gën a bëgg yàlla naa ko gën a taxaw waaye yàlla ma gën a bëgg loolu wax naa fokk nit ñi xam loolu àndub yàlla noonu lay demee àndub àdduna noonu lay demee te foofu duñ fa dem kon nag sëriñ bi ngir bañ a guddal ñoo ngi jënd bu baax ëpp na sax waaye nag sa soppe bi di sa xarit alaaji gumba xam naa mënu dara waaye dana fokk mu ñëw gis la bu ko defee rek lu mu néew néew danaa ko jox kàddu mu sànni ko mbokk jullit yi mbokku taalibe yi suñu bàyyi bu ñuy wax alaaji gumba seen mooy nuyu mbokk taalibe yi ak mbokk yi mu fi fekk sëriñ Mamor bàyyi neene mi ngi lay nuyu bu baax. di gërëm di sant. nee na moom day mi ngi lay gërëm ba noppi te bare dina la sant. cant gi nag. nee cant gi nag moom. ñu ngi koy tàmbalee ci sunu sëriñ sëriñ Mourtala Amar. nee cant gi mi ngi koy commencé nag ci sëriñ Mourtala Amar mi nga xamante ni mooy seen yaakaar. kon nag. nee na kon ñu ngi am ci yaakaar di ko dolli ci yaakaar gi ñu amoon ci yow. nee na ñu ngi am yaakaar di ko dolli ci yaakaar gi mu am ci yow. ndax dëkk bii nu nekk tey de. doo leen ñu baal rek ngeen may ñu tuuti rek ñu déglu ay kilifa dañoo toog. nee na dëkk bii nga xamante ni moom lañ nekk tey. mooy gàddeel. nee dëkk bii day moom moo di gàddeel. di dëkkub ñaanukaay. nee na dëkk bii day moom dëkkub ñaanukaay la. yoo xam ne bii lislaam lislaam a ko sanc nee na dëkk bi de moom lislaam ci boppam moo ko sanc te ba tey noo ci yoon wi te bàyyeeguñu ko nee na ba léegi it ñu ngi ci yoon wi te bàyyeeguñu ko te nag bari na ku dëgg jam te da ngaa yoon nee na bari na ku dëgg jam te da ngaa jàdd aw yoon waaye ku jàdd ku jàdd ci yoon te wàccoo ko nee na waaye nag ku jàdd ci aw yoon te wàccoo ko dëgg la jam nee na dëgg moom mën na laa bañ a jam te da nga yegg fa nga jëm da nga yegg fa nga jëm sëriñ bi noo ngi lay nuyu. sëriñ bi nee mi ngi lay nuyu bu baax. di xamal ni. nee dila di xamal ni. bu fekkoon ni mënoon nanoo paase cant. nee bu fekkoon te ni mënoon nanoo paase cant. daanu ko def. daañu ko def. ndax tànk yi mu def. nee na tànk yi nga def. yàgg na ko fee def. nee na yow yàgg na ko fee def. te nag sëriñ bi yow dafa mel ni danga noo jik. nee na yow dafa mel ni yow sëriñ Mamor yow danga leen a jik. da nga noo jik da nga te boo fi waxtu woo bàyyiwul li la jik bis boo bàyyiwul lila la jik doo taseeg li la jig doo taseeg li la jiga di te jinganu lool te nee ñoom day jingaleen lool yal na ci suñu borom teg wér nee na yal na ci suñu borom teg wér barab bii nu nekk nag nee na barab bii nga xamante ni moom lañ nekk ba ko tàmbalee di ko def nee bi ñu ko tàmbalee di ko def booba sëriñ sëriñ Mourtala mii ma nga ca daara ja nee na booba sëriñ Mourtala Amar mii booba ma nga ca daara ja ak sëriñ Falilou ak sëriñ Falilou Amar ma di ko doxal maag sëñ Gumba nee na moom mu doxal moog sëriñ Gumba Amar ba nu ko njëkkee di def nee na bañ ko njëkkee di def fii poti meew yi la ñuy dajji nee na ay poti meew lañ doon dajji génn ci ak mees génn ci ak mees def ci pétrole def ci pétrole di ko taal di ko taal kon nag ku fekkee woon jamono booba nee na ku fekkee woon jamono booba fekke jamono bii. fekke jamono jii tey. di ngeen xam ni dara wàññiku. nee na di ngeen xamante ni dara wàññiku ci. ndax suñu waajur wa. ndax suñu waajur wa. yow sëñ Mor. yow sëñ Mor. ñëw na ci dëkk bi ba tey. nee ñëw na ci dëkk bi ba tey. waaye nag yoon wa mu jaaroon. nee na waaye yoon wa mu jaaroon. wàccoo ko de. nee na yow day wàccoo ko. kon ñu ngi lay ñaanal. nee na ñu ngi lay ñaanal bu baax. sunu borom defal la salaatu wa salaam. nee na suñu borom defal la salaatu wa salaam. mucc ko ànd ak xéewal nee na mucc nag ba pare ànd ak xéewal. bu mën na noo paase ñaan. nee na bu fekkoonte ne moom dafa mën a paase ñaan. kon daanu ko def. na kon moom day weesu li muy wax nii. waaye sëriñ bi. waaye sëriñ bi. na ko fee fekk de. waaye na ko fee fekk de. waaye ko am wëllëre nga. waaye ku am wëllëre nga. ci ku am wëllëre. waaye nag ku am wëllëre. ko boo ñu am ci yow yaakaar. nee na bu yeboo ñu ci yow yaakaar. ndax defu yiw. ndax nee na defu yiw. mujj faa dik payam. nee na mujj fa moo dik payam. te noo ngi fi bëgg yàgg nag. te nee na ñoom it ñoo ngi fi bëgg a yàgg. waaye sa jotaay bii nga def. waaye nee na yow sa jotaay bii nga def tey jii. man de am naa mbégte naka jàkk daan naa am mbégte. nee na moom day yàgg na am mbégte. waaye nag tey dama moo ci waaye tey jii mu ñëw fekke toog ak yow lii de moo ci raw. ndax yow yàlla dogal. nee yow yàlla moo dogal. nguy sunu kilifa. nee na ngay seen kilifa. di sunu yaakaar. bi seen yaakaar. ba noppi ànd ak ñun. nee ba noppi nag ànd ak ñoom. ñu bëgg la lool na teg ci. nag ñu bëgg la lool teg ci. te nit la ko dal ca la mu bëgg yëgu ko. nee na nit moom la ko dal ca la mu bëgg moom yëgu ko. kon noo ngi lay ñaanal. nee na kon yow ñu ngi lay ñaanal bu baax. ñu ngi lay ñaanal fi nga bëgg a yegg. nee ñu ngi lay ñaanal fi nga bëgg a yegg. yàlla na nga fa yegg. nee na yàlla na nga fa yegg. sa waajur wu baax wa. nee na sa waajur wu baax wa. la mu semboon. nee na la mu semboon. ak li mu fi bàyyi. ak li mu fi bàyyi. ku am fit. nee na ku am fit. moo ko mën a nee na moom rek a ko mën a yàggale. kon nag yàlla ki nga xam ne ku mu jàppale. nee na yàlla mi nga xamante ni ku mu jàppale. sa dara du niil. nee na sa dara du niil. sa dara du jëm suuf. nee na sa dara du jëm suuf. yal na la di suñu borom jàppale. nee na yal na la suñu borom jàppale. yaakaar ji ñu am ci yow it. nee na yaakaar gi ñu am ci yow it nag. na ko suñu borom jëmale kanam. nee na yal na ko suñu borom jëmale kanam. am na nañu yaakaar nag ci yéen. nee na am nañu yaakaar ci yéen. ci yéen jàngkat yi ci yéen jàngkat yii. yéen a wax ni. yéen a wax ni. suñu borom nee na. nee na suñu borom nee na. du ma du ma ya du ma tas yaakaaru bindeef. kon nag yaakaar gi ñu am ci yow. nee na kon yaakaar gi ñu am ci yow. yal na ko yàlla yeggale nee na yal na ko yàlla yeggale. dañuy ñaan nag. nee na dañuy ñaan rek de. ndax ñaan dana ñoddi. nee na ñaan moom dana ñoddi. dana jiñ. dana jiñ. kon yaakaar amul pertement. nee na kon yaakaar amul pertement. kon nag yaakaar gi ñu am ci yow. nee na yaakaar gi ñu am ci yow. yàlla na ko suñu borom yeggale. nee na yàlla na ko suñu borom yeggale. bàyyi la nag. te bàyyi la te déeg te déeg la te musal la te musal la na mu musale woon gaalug yonent yàlla nee na na mu musale woon gaalug yonent yàlla noyin bëgg nañu yàlla sàmm la nee na bëgg yàlla sàmm la na mu sàmme woon baaba ca jawu mbesere ba nee na na mu sàmme woon baaba ca jawu mbesere ba loolu ku ko yàlla sàmm nee na yàlla loolu ku ko yàlla sàmm dootoo des gannaaw nee na dootoo des ginnaaw ku baax nga amar nee na yow ku baax nga amar suñu sëriñ bii nag nee suñu sëriñ bii ñoo ngi koy ñaanal nee na ñu ngi koy ñaanal moom sëñ Mourtala ndax moom itam ndax nee na moom itam ñi nga xam ne ñoom la wuutu nee na ñi nga xamante ne ñoom la wuutu ñun dañoo defe woon ne ni ñàkk nañu ñoom dañoo defoon woon ni ñàkk nañu dootuñu am mukk ñu mel ni ñoom nee na dootuñu amati mukk ñu mel ni ñoom déedéet nee na déedéet ndekete nag ndekete nag lii di ko dàq nee na ndekete lii di ko dàq kon nag kon nag ñoo ngi koy ñaanal. nee na ñu ngi koy ñaanal. yàlla bàyyi ko fi yàlla bàyyi ko fi seen kanam. ñoo ngi koy ñaanal. ñu ngi koy ñaanal. moom itam yan bii mu yenu. moom it yan bii mu yenu. yal na woyof tey ci moom yal na woyof toll ci moom. te nag dañ koy ñaanal. tey dañ koy ñaanal. waaye yow yow doy na waaye yow ànd yow rek doy na gàllaaj. kuy sa kuy sa waajur sëñ Mourtala. nee na kuy sa waajur ñu ne Serigne Mourtala Mbacke. kuy sa maam ñu ne sëñ Touba. kuy sa maam ñu ne la Serigne Touba. waaye dañu koy dolli rek. nee na dañu koy dolli rek. waaye nag. wax dëgg yàlla ñaan du jeex. nee na nag ñaan du jeex. moom mii nag. nee na moom mii nag. ay ay ay ay ay maamam. nee ay maamam. ak sunuy maam. ak sunuy maam. ñoo bokkoon jóge gànnaar. ñoo bokkoon jóge gànnaar. bu ñu ñaanalee. nee bu ñu ñaanalee. danañu ci jot. nee na dinañ ci de. waaye bu leen ñaanalee. waaye ñoom it bu ñu leen ñaanalee. dinañ ci jot nee na dinañ ci jot. kon nag. nee na kon nag. ñoo ngi lay ñaanal ñu ngi lay koy ñaanal yow sëriñ Mourtala di la dénk nag sunu sëriñ bi nee na nag mi ngi lay ñaan yow sëñ Mourtala di la dénk sëñ Mourtala mi it nag ndax yow ànd ak yow doy na gàllaaj ndax nee na yow ànd ak yow doy na gàllaaj ku bokk ci yoonu murit nag mi ngi lay sant nee na mboolem ku bokk ci yoonu murit mi ngi lay sant ndax liggéey bi ngay liggéey ndax liggéey bi ngay liggéey defaloo ko sa bopp rek nee na yow defaloo ko sa bopp defaloo ko sëñ Mourtala rek. nee na defaloo ko sëñ Mourtala rek de. defal nga ko kuy wuyoo murid. nee na defal nga ko képp ku nekk ci yoonu murid bi. defal nga ko képp fu fépp fu sa sa waajur wa daan dem. nee na fépp fu sa waajur wa daan dem defal nga leen loola. ndax sa waajur fu mu masaa taxaw. ndax yow sa waajur yi fi masaa na taxaw. jàmm fay jëkk moo fay mujj. nee na jàmm rek moo fay jëkk te moo fay mujj. te loolee mi ngi sa loxo te bàyyiwoo ko. te loolu mi ngi say loxo te bàyyiwoo ko. kon nag yal na la yàlla may kattan. na kon yal na la yàlla may kattan. ci semb wi fi newoon. ci semb wi fi nekkoon. ñu di ko yéem. ñu di ko yéem. yal na ko yàlla yokk. yal na ko yàlla yokk. jërëjëf sëñ bi. nee na jërëjëf. man day sama xarit nga. nee moom day xaritam nga. ndax maa la bëggal sama bopp. nee na moom moo la bëggal boppam. bëgg gi nag. nee bëgg gi nag ah wax dëgg yàlla sañu ma koo bañ nee na sañu koo bañ de ndax nit ku ne nee na ndax nit ku nekk la dal ci la bëgg nee na la ko dal ci la mu bëgg borom borom yëgu ko nee na borom yëgu ko kon nag mbëggeel gu ñu am ci yow nee na mbëggeel gu ñu am ci yow yal nañ ko yàlla fay yal nañ ko yàlla fay liggéey bi ngay liggéey liggéey bi ngay liggéey ci àdduna wërëngal képp de àdduna bi wërëngal képp ndax yéen li ngay liggéey nee na yow li ngay liggéey yemul ci yoonu mur rek nee na yemul ci yoonu mur rek gàllaaj la pour ñëpp nee na gàllaaj la pour ñëpp kon nag fi nekkal ñëpp kon nag ku fi nekkal ñëpp yàlla yàlla nekkal la fa. nee na yàlla nekkal la fa. jërëjëf Mbacke nee na jërëjëf. man de sama xarit nga. nee na moom da ab xaritam nga yóbbante ba nga ma yóbbante woon nee ba nga ko yóbbante woon ca nga mi ngi ak moom nga bi nga koy yónnee sonn booba nee na na de waaye dama ma leen jox leen ma ko jox ma ba ma ko diwee laa leen ni wér na kon nag dénk naa la sama bopp. nee na dénk na la boppam. dénk la Serigne Mourtala. dénk la Serigne Mourtala. dénk la suñu njaboot yëpp. dénk la suñu njaboot. yal na la yàlla may na kattan googu. yàlla may kattan googu mën a yeggale. jërëjëf ba jërëjëf. jërëjëf Mbacke. ku jóge ci yéen ba sa Serigne Mame Mor ngaa tabb ci sàppe si liqaam bayaan jiite jumaa ji waaye bu liggéey jotee nga tabb ci laboratoire wala ci bureau. Eh, fii may waaju jox kàddu gi. suusoo na ci dañuy njëkk a def la première conférence abrité par la grande salle des nations unies ku lu lislaam rek moo ko njëkkal kii may bëgg a jox kaddu gi ci teewaayam fukki kër Serigne Touba Mbacke ci Italie lak lak mata bi yebi sukkurin warida yaa waasihan wa saxtali bi mu tadal kon noonu ñëpp nu bokk déglu balay subri sëñ Mbacke maanaam noonu la Cheikh Moussa Sala bàyyi bëgg mu mel ni de ndokk bi mu ni melee yal na yàgg

sëñ Moutada. tàmbalee nag ci sëriñ Moutada. def naa ma tàmbalee woon ci El Hadj Gumba def naa ne bu ma tàmbalee woon ci El Gumba Seen. dina ko dina neex ñëpp. dana neex ñëpp. ndax bariwul lu ma koy gis. ndax bariwul lu ma koy gis. muy wax ci barab yu demee nii. muy wax ci barab yu demee nii. xëy na dina ko def. xëy na dana ko def. maa ko bariwul lu ma ko fekke man maa bariwul lu ma ko fekkee loolu it loolu it ñàkk koo def ñàkk koo def du ñàkk mën a wax du ñàkk mën a wax waaye bëgg du fu nekk nga bëgg a waxe it waaye tamit du fu nekk it nga bëgg a waxe kon xëy na li ko ci dugal kon xëy na li ko ci dugal mooy daf koo bëgg defe fii mooy daf koo bëgg defe fii mayit lu ma gàtt gàtt xam-xam. lu ma gàtt gàtt xam-xam. naa palaasam. xam naa palaasam. ci barab bii. ci barab bii. li ma fi indi. li ma fi indi. xam na xam na ko. defe naa ñu bari xam nañu ko. defe naa ñu bari xam nañu ko. tàmbalee ko ci Serigne Moutada. ndax mooy bunt bi. te loo am sañ-sañ. boo bëggee dugg ci barab ca bunt ba nga mën a jaar feneen foo jaar bët lay tudd te bëtt nag ku ko def lu nekk mën na la caa fekk mën nañoo defe ne dangaa bëgg a luubal ca biir lottal la ca bari ñu la ca tab du bari ñu la ca wallu. ndax ñu bari dañuy yaakaar ne boo bëttee luubal moo la tax a jóg. fii nag. du nu fi gan. ni ko sëñ daa waxe sànq. ba nu fi ñëw. sunu ñaar fukki at li ci tege bariwul te ñoo ngi sant yàlla sunuy sët sax ay mag lanu yàlla te ba ñu fi dalee ñëw ba léegi li nu fi indi saa bu nu ñëwee rek dañuy fekk mu yokk te li ñu fi indi nag du alal du daraja dugut mbooloo waaye li fi nekk boo ko xamee boo fi ñëwee loo fi bëgg mën nga ko fi am sëriñ Mor Faaruma di wajuru sëriñ Moutada mii yàlla na ko yàlla dolli ngërëm amin dafa tibb ci sëriñ Touba boo tibbee nag moom mu tibbal la te ndab la ngay def la ñu la tibbal bënnul te set boo amee ñu ko téye du yàqu te loolu fii moom lañu fi gis daay nañu fekk ay magam yoo xam ne daanaka sax xaw nañ koo mat way jur waaye yebuñu ko woon yëpp nit du caagu ni kuy xoggaliku du koy wane ay përëgam yëg wane ni amee na doole waaye yabet gi ci biir lay noonu lay tax ñu yab nit ci biiram la kon manees naa yab mag manees naa yab ponkal waaye am na loo xam ne képp ku mu nekk ci sa biir kenn du la yab waaye juram sëriñ Murtada la ko jox sëriñ Murtada yaral ko boppam te bu ñu nee sëriñ Murtada yaral boppam mën naa jaaxal ñu bari ndax bari woon na ñi mu yor waaye ñi mu yar bariwul woon te léeg ñu jaawale ñaari kaddu yooyu ngeen baal ma nag kajoor laa ne neexut waxe dama koy wax at mu ne ci wàllu wax alxuraan bi muy wàcc ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Muhammad ci la wàcc waaye ci yonent boobu. ci waxinu Xurays la doon wax. ndax arab dafa am ay lakk yu bari ay variant comme ni nu ko amee rek. mbu Kajoor. bu Saalum. Waalo. Siin. Bawal. ak ak sama mbokk yee dëkk Yoof. Assane maa ngi lay nuyu bu baax nga nuyul ma sëriñ bi ak colonel wax yooyu ci la ñu tibbe alquran ndax jibril moo doon wax ak yonent bi waaye yonent alayhi salaam mi ngi làmp ci xorij kon alquran ci làkku Quraysh la ko yonent bi salaam yo nettalee kon jàpp nañ ne ci li ci làng boobu la ko wax loolu moom seen diggante la li tax Quraysh mbooleem xeeti làkk yooyu yooyu arab yooyu Quraysh dañoo nekkoon ci centre bi ñépp di leen fekk si ku ñëw jéem a a wax wax ñoom. jéem a bëgg wax nañuy waxee. moo tax jàngal Alxuraan. yu waxin yu bëree moo ci nekk. moo tax li naan jànginu diw la. jànginu kële la. waaye ci biir jàngin yi sax. am nañu ci wuute. li ma bëgg a wax foofu mooy. dégg naa waxu Alaaji naa waxu Alaaji Gumba Seen. xam naa ne. damay wax ne am na ñoo xam ne. buñ la waxee lu nuru lu neex. boo dee nit. dangay ngay tiit. da ngaa war a tiit. ndax duñu la jay. lañ la waxit lañ la waxit bu nuroo lu neex waxin la rek waaye dañoo bëgg nga gën a góorgóorlu loolu lañuy ñuy ay waxam moom it ala jugum ñu ngi koy ñaanal ndax seex Moutalla kat danaa koy laaj toujours El Hadj Gumba waaye waajur la ko def waaye waajur la ko def ndax wax nga ne fekk nga fi lépp waaye defe naa am na koo xam ne bu ne doxe woon am na noo xam ne bu ne sëñ Moutalla doxe noo xam ne bu ne sëñ Moutalla doxe woon doo doo bàyyi. doo bàyyi. waaye dana am fooy yem. waaye nag dana am fooy yem. boo ko deful ci sa jëmmit. boo ko deful ci sa jëmmit. def ko ci sa xol. def ko ci sa ak sa xel. gis naa xam naa ne. te xam naa ne. kajoor. kajoor. xol ak xel. xol lu am solo la ci ñoom. moo tax sunu ñëw fii. lu ciy sant yàlla bu baax. lu ñu fi fekk rek yàlla na yokk amin wax na baat boo xam ne nee na asalaatu wasalaam alaji gumba ñaari baat yooyu foo ko dégg rek da ngay defee na yonent bi dong lañ ko war a ñaan rek la man bi na Mbàkke bi mu ko waxee loolu laa yaakaaroon dama ne salaatu wasalaam xanaa yonent bi lañ ko war a wax ndekete laaj nee na salaatu wasalaam ak ñaan ak ñaan la te def naa bu kenn doon doyal ak ñaan yonent bi doyal ko wante yàlla yàlla la du kenn ku moom kenn it la it ci kanam yàlla ndax boo dee jàng alquran gis ni muy waxante ak yonent bi da nga xam ne. xam ne. kenn rek la. loolu moo tax. ñaan googu. ñaan na ko yàlla nangu. yàlla na yàlla def xéewal amin defal nu jàmm. def jàmm ci réew mi. def ko ci àdduna. lu mu ci man di doon nag lu yàlla defit leneen ma nga ca wet ga bu defee jàmm leneen ma nga ca wet ga bu defee xéewal leneen nga ca wet ga ginnaaw ñaar yëpp moo ko bind kon nag ñaan gi ci li ci des boo ko ñaanee na nga koy sàmm mooy nekk ci lim la digal mooy mooy ndiku lépp lu mu la tere loolu mooy sàmm xéewalam googu. la ca desit moo koy moo koy ñàggi. yal nañu ci yàlla musal. kon daal wax ji moom baamu rekk la yàlla na nu yàlla def ñu di ko fekke amin bakk na fi jàmm moom it Cheikh Mamadou Moutada ak i bokkam yàlla def leen jàmm ndax toujours dama koy wax ne yéen ni ngeen di jàppante bu doon ci nun pël dey dañuy defe ne dañoo raciste fekk boo amee mbokk mu baax da nga ko war a téye mbokk mu baaxul nag jërul téye boo ko mënta bàyyi jërul tee ndax amul njariñ li fi nekkit dama koy wax ni ko yéen li ngeen di am te seen maam wutal leen ko foo mu ko wutee bu fekkoon ne foofa defewu ko noona kon leneen mën naa am kon leen lekk sax ñu buux leen waaye buuxit boo ko defee koo xam ne da koy buux ba sonn te du yëngu kooku bàyyi rek moo ci gën waaye bu dul woon loolu lu ne des na ko gis waaye li ngeen am nag téye ngeen ko kenn mënu ci dara ndax yéen ngi koy téye li ma doon léegi itam xaw a kii ab chauffeur am dama ko fekk ci buntu kër chauffeur sëñ bi ñu dugg bëgg a jàll mu ne moom du àndu ndax daal sëñ Moutala moom moo ne ko chauffeur bu fi jóg ma ne ah kon nan wàcc dox ba ma félicité ko ndax xam ne ku nekk la nga am boo ko téye te sëñ Touba nag noonu la doxalee ku ci nekk lam la jox. kenn mënu ci dara xabal beeg xabal beeg yëf yeeg lu nekk mënuñ ci dara tey te loolu bu ko defee noonu dana doy waar lool gars yi bëgg nañ seen yëpp bëgg yëf yi jàmbur te duñ doyal te la ñu am nag duñ ko yax dañ ko di seen bopp loolu nag kon kenn mun sa xam lu mu doon kaddug mbaax mbaax dama ne loolu kat dug mbaax tey kon nag jërë ngeen jëf ngeen baal ma nag ndax xam nga fii kajoor la daan ne ko waxe de ndax sañ amet suko ngi nii di ma déglu ak yeneen ajoor yi nga xam ne daal mi ngi noonu daal jërë jëf